mon ami mon mi mon ami léegi nag mbay xam nga mbay xam nga taay dañu jël di yëgal xale jigéen ñi xam nga rangé bi yëpp yëg nañu xoolal xoolal ku yéegagul nga ne ko coppet ñëw teg ko fii tey yaay tànn tey yaay tànn ku yéegagul léegi xam nga kan laay tànn ku yéegagul ku yéegagul xoolal ci ñu yéegagul dafa mel ne yaxar yéegul de ay ca na ñëw <laughs> dafa mel ne yéegul yaxara yéegul yaxara واليحرى واليحرى asalaamaaleykum dama kontaan. dëgg la ndax si bopp dafa yàgg ak ñun yàgg dafa teg ñun lu baax. dëgg la dama ne diw bi. jamaa noir laa ko tuddee. Oh. kii ku yor teen jamaa noir rek. bii ngay jël. ku bëgg sa jëkkër. teewoon di melax comme jamaa jox ko bii si bopp bi dix sur dix dama ne kenn didimatul kenn weexatul koo gis poom ma ngay melax bii na xam nga ma koy jox ah <laughs> sama càmmiñ ñi bu caa mbay ah. képp kuy góor jox naa la waaw xam nañ ni pale daf maa jig. waaye si bopp mii moo ma jàppale. moo def man ci si bopp daal lii moo ko def ci man. waaw leen ma. xam nga ba may ñëw. meru nii. si bopp daal nii la defanteeg man ci lu baax. <laughs> ah. <laughs> lee baa nii blanc lañ koy wax. xale jigéen ñi waa Kouthia Show yi nga xam ne dañoo xees ante yu normal rafet cekkate doon ay xale doon ay jongama piir xoola bu ma demee damay juum yéen ñëpp may naa leen ko ceeb ci baari dama ne carotte dafa eh. baax bëtu kenn la na matul ndax dañuy lekk carotte di naan carotte di ko ay jus waaye nag si wax dañu ko defal diw aadama moom lay diwoo ñun ñëpp moom la diwoo wax xoola carotte baa ngi nii yaxara dama ne parfum waaw ñambaan ñoom seen yooyu ak yooyu. kenn soxlaatu ko ndax saabu bu baax. Ah. Eh, xoolal boo amul njàmpe da ngay diw ba mu baax. di def muy gilise nga lenqali ko sa yaram di gën a liis. léegi yaxara bu ñu paree ci si boobu rek yaa ngi jëm ci moraar. dama ne ma mooy bii. bu bees baa ngi nii. waaw boobu mag bi noo ko tuddee. jaara. noo ko tuddee. ah ñanga ma ne namatuma fóot. waaw. xam nga man foo ma gis xam ne man fóot rek laay def. waaw ba biir moom sama kër toog ci sama kër fes ko ma daa jàppale ma nag di defanteeg man lu baax. waaw. 30 minutes laay fóot juróomi paan. waaw. yaa jàppale yaa jàppale yaxana. ah Noura ngi nii. Madaar Bakour waaw mi ngi nii. waaw suuratuma ba sonn. waaw waaw. wareetuma këriñ. déedéet dootuma boyal. déedéet moom lay jël. ah xeeñal kër xeeñal nekk. namatuma dara. très bien. pale bi nii laa koy toppee. fii fii fii fii. yow ñoo ci saa bi ñoo ci saa bi yaa ngi génn saa bi. ñoo ci saa bi may tuuti si cadre bi si cadre bi rafetul. weesu rafet. léegi soo paree su jeexee noo koy def sama oto bii laa ciy teg. waaw bu ma duggee daal di piis. waaw xoolal. xet gu neex. waaw xet gu neex fraise la. Oh. xet gu neex. waaw xet koo xam ne day resté. waaw boo xëyee ba puisque. ay jël ñu jël beneen bi yàq na moo may akolaat. ñu jël beneen bi ay jël ñu jël beneen bi. boobu mooy ban bi mooy ban. bii nag cocktail la te ah, cocktail boo ko déggee mooy fruit. ci lépp lu mu am ñu cocktail ko xam nga ne dafay neex. kon xoolal teel a ko yóbbaale fu ngeen jëm baax na ci moquette. baax na ci rido. baax na ci lépp. ah on se jabal ngi. dama ne bu ma jógee marché moom laay def sama ñaari goutte. def samay légumes. waaw waaw fas yéenee taal. ndax taal gi dafa am nu mu war a demee kon lii cay jiitu. waaw waaw ay jël paleet moo ca baax. ay jël na danaa na danaa yaxara. rawatina nag douche yi. waaw jaar nañu. waaw am na ñu jaaragul. waaw après ki jël pay. waaw day am loowu. day am biscuit am loo bi am loo bi am loo bi moo xew fi léegi. des na ñoo xam ne jaaraguñu. waaw bu ñu jeexalee rek après ñu daal di tënk. am na ñoo xamante ne suñu waxee suñu waxee. ñu bàyyi àdduna. mbay taabaa ñuy xoj nag. taabaa ñuy xoj eh xaas maa koy nuyu ak Sidi xaas maa ngi il faut ngeen jàpp ne. le 6 juin dañuy dem New York New York City le 6 juin inchallah situation décentralisée à New York sponsor New York xoolal fa lañ koy defee korité bi ñu suba la ñuy korité ñu ngi New York suba la New York New York New York New York New York Kouthia Show nag di gërëm ki nga xam ne moo nekk ci réalisation centrale bi di Fatima Evans mi réalisé émission Kouthia Show fekk goog ki nga xam ne mooy toog ingénieur en son benn jëm ñetti caméra di sëñ Xaadim bi yor large serré ak ruquba ñuy gërëm tamit lumière ki nga xam ne moo fi jaar di ja tonton Pierre ci dem ak dëkk bi aw Diouf coordination diggante head office ak Kouthia Show euh, ambiance Kouthia Show yi waaye tamit ñuy gërëm Aminata Ndiaye di la maquilleuse de Kouthia Show ñuy am mbégte ak contentement ci mboolem euh, sponsor yoo xam ne taxaw nga pour émission bi mën a am visibilité mbokk yi ñuy gërëm kilifa diine yëpp nag ñu fi tudd yëpp ñu ñaanal leen yàlla may leen fan bu gudd ak gërëm sëñ Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides ñu ngi koy ziar sëñ Mbaye Sy Mansour xalif général des Tidiane ak Pape Malick Sy nekk ci kër ga sëriñ Cheikh Jëmb Fall xalif général des Baye Fall sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Niass xalif bu Medina Baye sëriñ Mame Abdou Laye Thiaw Laye di koy ziar xalif Laayeen ak sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane euh, Niass di xalifa Léona Niassène ñu ngi koy ziar ak Serigne Cheikh Bekay Kounta xalif général bu Ndiassane Serigne Cheikh Tidiane xalif bu Thiénaba Alaaji Karamba Soane xalif bu Médina Soane Serigne Cheikh euh, euh, euh, Thierno Bachir Tall xalifa xalifu ak doom ji Cheikh Omar ñu ngi koy ziar Serigne Muniru Jigéen xalif bu Serigne Amadou Baro Jigéen ziar nañ ko ca Thiès ak Chérif Khaya Aydara xalif bu Nimzat Serigne Mohamed Lamine Ngom nekk ca Paal Cheikh Ahmed Tidiane Ba di xalif bu Médina Gounass le 6 ba bi di Cheikh Ahmed Tidiane Ba yàgg fi lool te ànd ak wér ak mboolem taalibe boo xam ne yaa ci sous région bi ak ci diaspora bi sëriñ bi joxe na ndigal pour ñëpp daa teew ci xam ne mooy Dakar bi le 6 avril ba fukki fan ak juróom ci avril lay am ca Medina Gounass ca Dakar ba sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Ba yàlla fi yàgg te wér ku ko wax fi yàgg te wér sëriñ Youssoufa Mbaye xalif maam Cheikh Mbaye ñu koy ziar sëriñ Mansour Cissé xalif bu Pire sëriñ maam Abdou Dramé xalif ca parce que ñu ngi koy ziar Cerno Abdourahmane Bari borom Bogol ñu ngi koy ziar ak Cerno Hamdou Wan Bari nekk ca Italie di ambassadeur ñu koy ziar sama baay sama sëriñ sëriñ Abo Mbacke xalifu rajab gii am nañu yéene nag daal koy ànd ak moom di ko ci ñaanal tamit yàlla may ko fan bu gudd ak wér yaram te mu yàgg fi te sëriñ Fallou Mbacke docteur sama sëriñ sama xarit sama wëlëre maa koy ñaanal jàmm di ko ñaanal tamit wér moom tamit sëriñ Fallou Morabi sama baay la ñu ngi koy nuyu mu ngi ca Fouta imam Serif si yew tere xaritu mbay la imam Samba Ndiaye di euh, représentant xalif général des Tidiane te di euh, imam ratib bu Ziguinchor moom ñu ngi koy ñaanal góor gi Samba Ndiaye yaayam yàlla may ko fan bu gudd góor gi yaram mu yàgg fi lool te wér Serigne Cheikh Saliou Mbacké di xalif Serigne Saliou Mbacké moo foofu ci Touba ñu ngi koy ziar di ko ñaanal fan bu gudd ak wér euh, gu yaram Thierno Bokar Alpha Ba nekk ca Warfonde Mamadou Thierno Mamadou Adama nag le mooy ziar général bi nga xam ne ña ngi koy amal ca fleuve Ñank Idi yàlla yàlla may ñëpp ñu fekk ko te fi lool te wér Alaaji Mamadou Gaye Gueye nekk ca Mbour Tafaska ak Serigne Habib Gueye euh, bu Serigne Mansour Sy ñu ngi koy ziar ak Alhaji Ousmane Ndiaye Waliou Kamine sama yaay Ajaratu Bousso Cissé ca marché HLM ziar nañ ko Serigne Mamadou Sougou Wadane di euh, Waliou Kamine bi seexal papa Awa Kara di Cheikh Adama Niang ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram Alhaji Seydou Sow sopp Serigne Fallou dëkk ca Passy di ziar tamit Serigne Abdou Karim Mbacké borom Palais ba ca Ndindi ak Modou Fleur bëkkane bi ñu ngi koy nuyu xam naa kasu rajo bi taalibe yu bëri nag danañ fa dem ñu ne ñaanal nag ñëpp fekke te kenn bañ a manqué cardinal Théodore Adrien Sarr Monseigneur Benjamin Ndiaye abbé Jean ak Roger ak suñu yaay baax yi nekk ci Popenguine ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal kare mu jàmm ñu daal def ci dugub bismillahi rahmani rahim gën ci alhamdulilahi rabbil alamin ci barke yonent yàlla Yeesu Krista borom xel mu sell bi sama yaay suñu marraine suñu xarit di maître Fatima Fall nekk ca Ndar responsable politique ñu ko jooy ba tey fan bu gudd ak wér yaram di Serigne Babacar Abdoul Aziz Si nekk ca Tiwaawan ak Alaaji Tafsir Sakho Iliman ziar nañ ko imam ratib bu Banjul Aliou Maska ñu ngi koy ziar ak sama yaay ajaratu Daaro Cissé ziar nañ ko ca Banjul alaaji Ibrahima Mbaye Xalilula ak soxnam Fatou Mbaye ziar nañ ko sama papa bopp di alaaji Alam Mbaye bëgg ma xal nekk ca Serekunda ca Gambi di nitu diine koo xam ne day jëfal ndax l'islam ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram Serigne Gora Seye serviteur de l'islam le 30 mars moom mooy bés bi nga xam ne dañuy sargal 99 noonu jéey ku ci teew nag diñ ci xam njëriñ yi nga xam ne tur yàlla yi loolu la mbubboo mbokk yi ñuy gërëm tamit bu baax góor gi Ablaye Ñang jànkatu xasaayat la foofu nag ca Ndar géej foo mu nekk yàlla ko yàlla may fan bu gudd ak wér-gu-yaram ak alaaji Cerno Baabu Nuuru li xale bu daaree xale bi ñu ngi koy ziar di ziar tamit bu baax a baax a baax a baax suñu xarit suñu wëlëre di Idrissa Jaxate nekk ca Cilmaxa waaye am mbégte contentement ki nga xam ne nag mooy Cheikh Ndigal Sène nekk ca Ñambur Sine ak Ablaye Sarr bëkk néeg ba soxna yi ga yëpp ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal ak wér gu baay Ba di waaliyu Kamin ca Richard Toll ak Serigne Saliou ko yàlla may fan bu gudd ak wér gu yaram Serigne Mbacke Jongu koy ñaanal moom tamit jàmm ak xéwal yàlla bàyyi ko fi mu yàgg lool di am mbégte vraiment ci bépp kilifa diine boo xam ne yaa ngi ci réew mi ak ci euh, bitim réew ñi fi nekk nag ñu leen di ñaanal fan bu gudd wér gu yaram alaaji Cerno Bari fat fat nekk na ko yàlla may fan bu gudd wér gu yaram di ziar tamit euh, ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd wér gu yaram waaye sama maam sama turandoo sama sëriñ sëriñ maam Samba euh, ba nga xam ne mooy Dramé njimb ñii ñëpp nag di ay ngi leen di ñaanal fan bu gudd wér gu yaram yàlla yàlla bàyyi leen fi te ñu lool mbokk lii. waaw. altine. tey mooy talaata. waaw. mu ngi yëngu ba tey de. ah. ca Gambie. waaw. fay continuer am na ñuy laam-laamee ndax lii dëgg war dëgg bés bu ne ñaar bàyyi wala ñaar dugg ñu seeti daabo. bi nga xam ne moom la Yaya Jammeh noonu ràpp ci kaso ba te kii nga xam ne mooy Barrow moo ko faloon mu nekk ci ginnaawam. mujj koo génne démb waxoon nañ ci tey mu ngi ñëwaat am na lu ko métti na góor gi ñu xool lan moo ko métti ñu seeti ah, daama dara nelawuma man dama jume ndax li nga xam ne moom laa gis dama foogoon ne gént la waaye ndekete du génta hay bi yeewoo ba laal yi xool rajo yi xool journal yi ñu ne dëggantaa njaay man nekkatuma ci ak hey ak baro ku ma ko waxan du ma ko gëm ak fi ma jaaree baro yëpp yëpp yëpp non because his problem is not problem li kenn ku ma ko waxoon du gëm parce que because fi ma jaar ak daabo fi jaar ak baro ak ni ma uufee baro ak ni ma jàppalee baro ba baro yaakaar ne moo taxaw bi ko se adduna taxaw mu ne may may may papam oh because lii bis lii mënu maa indi problème mu bopp sax parce que problème bi mooy soo soo nekkee doomu adama nit daa hey man est-ce que duma dem Sénégal ñu xool suma bopp bi waa lii est-ce la soo hey laay laay laay fi ma jaaree ak moom ni ma dundee ak moom ak li ma yaakaaroon si sama àdduna yëpp ku ma waxoon lii di non lii Adama Barrow li mu def nii soo moo ko tey man dama foogoon ne hey Yaya Jammeh lu mu ñu wan ak li nga xam ne moom nañu dunda ak moom yëpp yëpp yëpp amul te beneen ni boo xam ne di nga ñëw def hey lii ka foon Yaya sax moo xëy na Yaya Jammeh demoon nañ ba tamal ñu boppam ah. ba ñu tam ko ba tamal ko ba xam ne ñu sax bu ñu gisul Yaya dañuy Adama ah, Barrow xëy man lii because fan laa ko di waxe yow nga dem ba nikki man la daxa man la Barrow di daxa ak fi ma jaar ak Barrow man la daxa koo xam ne tey because su ma ko bay woon tey yaa ngi taxaw ci angali naan ku bugg kër ku bugg a Barrow hay nguur neex na de maa ngi soog a am ne lu tax Yaya Jammeh waxoon na ñam na neex na soo neexu ko de ah moom dafa ñam mu neex mu ne dafa toog loolu loolu soo da da hey man lii hay man suma toogee nii suma bopp bi nekk suma kaw yaram bi hay man lii ndax man dina ànd suma xel hay la ilaha illa waay man ak suma jaar ak baro Yaya Jammeh ho waxoon na soo ne ah. yéen ngi dem yéen a ngi may génne waaye seen daka bi dina jaxaso ah. ñu yaakaar ne moo ci dugal loxoom ndekete lii laa waxoon lii laa gis ah. hay ko wax ne Yaya xamul dara da ngaa juum ndax soo moom nañu dunda la ilaha illallah baro hay baro baro lan nga ñam mu neex nga ne doo bay hay yow da nga bugg of because lii la la hay nga ñam mu neex nga ngoy xëy mooy ay di mooy ci loo xam ne xooy because li moom dama ana suma xel bi wara suma bopp bi mu ngi suma yaram bi warat yow nga dee nga mooy nga ne doo bay lii kenn xamul lan la waaye man ku ma waxoon lii dinaa ko gëm waaye Yaya Jammeh sax man de xaw ma fu ma mun a gisee because Yaya Jammeh ba woo ko ne ko mu baal ma ax parce que waay lii ma nekkoon ci kaso bi Yaya tëj ba sax moo ma gën a hey baro baro ay la la hay yow ñam nga mu ne nga mooy ne doo bay mukk lii kenn <laughs> hay man de man ku ma waxoon lu bi ko si ma bay man maa ngi soo am lu tax nguuri ah, kon am na lu muy saf lu neex loo xam ne ñun ñu topp ci moom safu ñu way coona bi nga xam ne moom ngay daj pour nekk ci nguur saaga yi wax yi xas yëpp nga mooy hmm. nga ne doo ñam <laughs> hay baro hmm. man li xale yi di wax moom laay mujj defi li xale yi wax ne damay mujj toog rek wala demay mujj faat hey ñaanuma ko yàlla waaye lii kenn xam ay <laughs> baro mooy wax lii ah. du ah. ba pare dak ay moromu baay nga ngoy nga ne doo bay man li kenn musuma koo def waaye ñam mu neex nga ngoy ne doo bay ah. ba pare dak ñi nga xam ne ñoo waroon ñam ci sa ñam bi hey ku ma waxoon lii du ma ko gëm li xale yi wax moom laay mujj dem because damay mujj kii ku la wax loo damay gaañu damay wax. ak contentement bu mag di nuyu waa Cilmaxa Mbaxoon sëriñ Idrissa Jaxate xalif ba ak sëriñ Ousmane Jaxate porte parole ba imam ratib euh, di euh, alaaji Idrissa Jaxate ak njabootu maam xaali ma Jaxate kala bi ñu ngi leen di ziare ak waa ayumaan aynumaani Jaxate dëkk boobu ñoom ñëpp ñu ngi leen ziar di nuyu tamit suñu baay suñu xarit di alaaji Cerno Bari Fat Fat borom euh, dëkk bi nga xam ne mooy Fouta Jalon ak Gambie ak Amerika ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd gu yaram ak mboolem taalibe xam ne yaa ngi foofu nag ca dëkk ba ne moom mooy ca Gambie moom alaaji Cerno Bari Fat Fat koy ñaanal kenn dalu jàmm sëriñ Moopa ne borom gànjool ñu ngi koy ñaanal moom tamit fan bu gudd ak wér gu yaram ak soxnaam di sama xarit Sophie Thiam yaayu Khadija Diop Elimane ah, El Hadji Malick Diop ak Cheikh Ahmed Tidiane Diop ñu koy ziar di ziar tamit ah, sëriñ maam ah, Samba Dramé xalif bu sëriñ Maktar Kala Dramé surtout sëriñ Maktar Kala Dramé yëpp nag 63e édition ziara bi le 23 mars lay am ca Njimbu Dramé kooku nag ñu ñaan nag bépp taalibe ñi nga xam ne nag sëñ bi mos na leen jàngal diggante Gambie Mauritanie receteurs yi nga xam ne ñoo koy organisé ñu ci profité di nuyu madame Dramé bu ANCAR ak docteur Jim Dramé moom tamit ñu ngi ko ci ziar Cheikh Abdoulaye Soxna di euh, Serigne As Soxna nekk ca fatik ak imam euh, di euh, di imam foofu nag imam Medinatul bale dëkk boobu ak Serigne Baye Soxna di xalef représentant waa Kër Baye Niass ca Fatick ñu ngi koy nuyu di wax joyeux anniversaire à Baydi maître tailleur foofu nag ca Yoff salon Ami Thiam Couture moom tamit moom maître tailleur ba ñu ngi koy nuyu moom Baydi nga xam ne nag soppee Ami Thiam ko li nga xam ne moom mooy atelier couture am ndax wëllëre ak kóllëre bu yàgg diggante moo taxit anniversaire tamit Ami Thiam mu koy koy di ko ñaanal fan bu gudd wér gu yaram moom béy di xale bu yaru nekk ca yoof di ko ñaanal fan bu gudd ak gu yaram ak jàmm tamit ak xëy ndax anniversaire bi wax dëgg yàlla euh, dañ ma yóbbante ne moom boo ko waxul nag boo ñëwee ci kër ga tey euh, ci beneen buntu jaar waaye buntu central bi moom la bokk ak di xaritu Ami Thiam te tuddee salon bi Ami Thiam di Ami Thiam couture nekk ca Yoff moom béy di tey la moom béy di tey la moom béy di tey ma koy ñaanal fan bu gudd ak wér lu tax may nekk di ko bantuwaat di ko bantuwaat damay bañ fàtte anniversaire bi dem kër ga kenn du ma ibbil kon anniversaire bu di maître tailleur nekk foofu nag ca Yoff tey la anniversaire di tey la anniversaire bi tey euh, euh, <laughs> sama soxna sinon bu ñëwee kër ga tey <laughs> du ma fa dugg kon nag adversaire bee di nekk foo ca Yoff tey la adversaire am <laughs> voilà très bien très bien <laughs> merci jërëjëf nag kon yaakaar naa ne kenn du ma laaj tey lu tax jàllale ko. Galambay di bàyyi Cheikh Tidiane euh, borom Qatar ñu koy nuyu borom Dubaay euh, di naaru yaay Ayda Mbay bi ñuy jooy ba tey noppi guñu ñu ngi koy nuyu di suñu xarit di taalibe bàyyi bu mag euh, tamit di doomu ndeyu Fari Mangane jolof-jolof bu mag bi moom Galambay ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram nit ku yàlla baaxal la ku social nit ku am colère te digne moom tamit Galambay yàlla na ko yàlla defal jàmm joyeux anniversaire à Fat Cissé c'était depuis le 30 mars dina ibbi restaurant boobu yàlla may ay xéewal festival tubaab jalaaw la 11 le 12 13 lay am Ibrahima Sarr ñu naan ko Ibou Sarr di Baye Fall bi moo koy organisé ak doomu euh, tubaab jalaaw yëpp man nag dinaa fa teew ndax kii nga xam ne mooy soxnam di sukkay na madame Sarr sama xarit la mbokk yi. waaw. Euh, leen la ko xamal. waaw. nee naa leen semaine bii. dale ko lundi. mardi. mercredi. jeudi. vendredi. xibaaru soninke la. mandinkole maanaam soose yi ñoo ñoo ñoo aye démb tey ak suba yëpp ak baajuma àjjuma soose yi ñoo aye ci information ak journalu soose bii nag ñu koy may Asi Cissé Asi Cissé bi nga xam ne mooy turandoo bébé Asi Cissé bii te ci kanam tuuti nañ dagg gato bi tey la anniversaire u xale bi ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér yaram ko jàmm yàlla musal ko ci cat ak làmmiñ xale bu yaru jàpp ñaamuram waxul amul ak kenn problème di xaritu bébé yëpp moom assisé sama séri sama cappali boobo moo toog nii yàlla ko yàlla defal jàmm léegi nag ñu dem seeti journalu Mandeng bu semaine bi jeexee journalu Haalpulaar ba ca topp bu joolaay ba ca topp bu njaago yi beneen bu séeréer kon tey dañu delluwaat jàkkaarloo ala Karamba Dimba mhm. Cissé nen ko le sartiankole kannon ko nan ko skinawo non ko basket ni équipe na singala noon cala ka lankele ko bantani mantano bolo ko mafo e kana séminaire hala nen grève hale olo no ki bagdate ni ana eni kalon kono malen kolo sera kajante chapeau. kole na yallo nan jalan kanta kale ban kalen kono ban konton ko nanan kasa e jikono no lenga garu ale bo yon tole mamba balen ko bono baskerin kala gindo wari <laughs> molen ko ne elema Adidas sélectionneur au moment de la qualification mala ko bantala kono koyene basque sénégal wala kene nord africa bala ko ñonon ko len ke tan ko tan ko bankale kon ton ko bakal walan ko ne bala ko len nan ko nun tala ni abi jana mala ki ara kele ala barka bankan tole ke ñaalete nawole man nankala ko xibari ko séminaire re kana balan kone ñankalan tole nawolon kon boole boolen ka ñukuti nan ka ñole nan ko koko anta bala balla ko singali kane nin ka wolo ayo ni aya kaye walan woni ala balankala ni kan bantole nasare kal jantalon rulon ina nan kale ala ali kamono ni kale kale na bale ke tawolon na ñini ka cipri nan jabale abunon kale kale nin kolo mansenan kon kale jangan jagol ko ni kale alambo grevo nanko yenge balon ko kale kale kale kew ni wolon ko bëgg kale kale montole anen papay kale yalla mono yalla e ka sabon kole ananka bole kana inda université lycée non ko kale kanka bankana kale kale njayon ko bagdad annan kole kale wala ma inkolo salankan jankane kibari jankantoloye manko bankala non kinnano kon kale ka balan drame unun kono nina mintan jay malinko sole ka asisise lolon ko bole manyigana kol kasano ko woke suko boran jotu ko linkane wole bamo ningale bantanale kam kam nina pap dudu alinke cala ginnondo malinka bante kale anna asaɓe yanko jon kole <laughs> ko orowar ndiban kole antakara ka mon colo e ko bale nin kolo ko bale in kolo mañingone sera jantale man kole bame nin kolo sani na sigi jan alamana tera kerelala barka barkala momon ndin kole ba ni anin kale anin banen kon kale kale kale banta banta mo ñini ko journal finin ka khadim caméra réalisation fatima e journal enin ko mañin ka ɓaale kolo di wax joyeux anniversaire à bébé Aïcha Ndiaye doomu mami Euh, doomu euh, mami euh, sëtu Kuma Ndiaye ak saada Ndiaye di turandoo Aïcha Ndiaye ba ca pari bébé Aïcha Ndiaye nag moom nag yaa yaayam sama xarit la waaye tamit maamam sama xarit la di Aïcha di Kuma Ndiaye ak saada Ndiaye ñun nag seen sët bi mooy def anniversaire ñu jël doom ja tuddee ko Aïcha Ndiaye borom Paris suñu yaay nag ajaatu ko sa sekk ñu ngi koy ñaanal fan bu gën a góor gu yaram ñaari yëpp benn famille la ndax Kuma Ndiaye ak Sada samay xarit nañu samay wëlal nañu Soadu Ndiaye sama wëlal la ak Karim Ndiaye sama wëlal la Aïcha Ndiaye bi nag nekk ca Paris nee naa ko dem Paris yomb na waaye dëkk fa moo jafe moom tamit mu ngi delloo njukkal euh, kiyam bi nga xam ne mooy turandam bii di bébé Aïcha Ndiaye nekk ci Cincinnati Ohio ñu koy ñaanal fan bu gën a góor gëram waaye Aïcha Ndiaye tamit ñu ngi koy ñaanal moom moom ci boppam euh, nga xam ne nag euh, moom mooy turandoo turandoo bi ñu ngi koy ñaanal fan bu gën a góor gëram nag kooku Kumba Ndiaye ak Sada Ndiaye seen sët bii nga xam ne moom mooy Aïcha Ndiaye nekk ca États-Unis moom lañ tuddee Aïcha Ndiaye ba ca Paris te nekkoon ci HLM di sama xarit sama wëlal di ko ñaanal fan bu gën a góor gëram joyeux anniversaire à Soadou Kébé depuis Kébémer de la part de xaley maye yi xale yu maye yi ah xale yu maye yi ah waaw ñoom ñooy ñoom ñoo koy souhaité moom Souadou Kébé foofu ca Kébémer joyeux anniversaire à bébé papa Ndaw qui fête ses deux ans fils de Bigué Ndaw et de Papa Ndaw euh, dédicace à mère euh, Bouri euh, Mbacc ak tante Mariam Dia ak mère Mbacco sekk maam Diena sew ak Oumy Ndiaye Sane Ndaw Ndimo Ndaw et Soukay Ndaw ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal fan bu gudd ak wér gu dina ñaanal kenn dalu jàmm waaye tamit jox dédicace aux missionnaires de CNFPI 12 depuis Congo province de Ngoma pour le maintien de la paix tous les contingents de cette euh, euh, mission Euh, de le haut commandant de la gendarmerie nationale Seck Pouy ak Abdou Diop ay la major madame Mbacke Amadou Ndaw ak euh, monsieur Ndaw bu Siara ñoom ñëpp ñu ngi leen di Omar Tall depuis Sokone ñu ngi koy édition cant Thierno Abdourahmane Bari bi xam ne nag Thierno moo koy def ak euh, ñi nga xam ne ay soppe taalibe Thierno Abdourahmane Bari nañ le 12 avril lay am ci Pikine Guédiawaye wax nañ leen ko Thierno Abdourahmane Bari Wali Kaamil gi moo fay jiite jour bi xam ne mooy ajjuma boobu nga xam ne mooy le 12 ca juma Pikine 10 man danaa fa teew mosquée rue 10 bi danaa fa teew déjeuner ak ziara xalif bi ak xadratul juma yëpp ci bés bi lay am moo taxit képp koo xam ne da nga am tolof tolof war a ay nekk ci jafe-jafe war a koo xam ne wax dëgg da ngay ut jëkkër amoo te am ci ay am problème am jëkkër boo demee ci ci ci ziara bi booy ñibbi si di gis ku la bëgg ñi demoon première édition deuxième troisième édition bi am nañu am ñu am am nañu am doom sax bu tuddee ko Thierno Abdourahmane Bari waaw parce que sëñ soo ko gisee ziara aynu euh, aynu maadi bu malem odaar ñoom ñoo ma invité alaaji Modou Ndaw Aada Ndaw ak Moustapha Ndaw Mansour le 23 samedi bii la Habib borom restaurant Daaru Salaam 1 2 suñu xarit la moom ci famille boobu la bokk moom nag nee na ñun ñëpp invité nañu bu fekkee bëgg nañu lekk cokkeer ba naat ba gëlëm bépp xeetu taraanga moom ci boppam moo yor restauration bi man moom dinaa dem moom ma dem odaar xaw ma ko waaye man moom dinaa dem moom bu soobee yàlla moom moom dinaa dem parce que ñii vraiment il mérite tout euh, Astou Sène depuis Kër Massar ñu ngi koy nuyu ak Nabou Samb depuis Yoff Ninat ak Gracé Samb depuis Ninat euh, euh, Sébi Xotaan Faati Gay Yoff Tàngoor de la part de Adama Sarr borom Yoff Océan moom tamit mu ngi nuyu ay mbokkam foofu di leen gërëm di leen sant waaye nag di delluwaat di gërëm bu baax sama papa Serigne Maam Samba Dramé di xalifa bu Serigne Maktar Kala mi nga xam ne nag sëtam yëpp incha allah le 23 bi mooy 63e édition ca Njimb Dramé nañu defee nag ziara bu mag boobu ñu ciy woo bépp taalibe pour ñëw teew ko mais mbokk yi États-Unis bi le 6 juin la bu soobee yàlla incha allah ni ñu defee Kouthia Show décentralisé Ndar dafee ko di ko defee waaj Casamance noonu lañ koy defee fi nga xam ne mooy États-Unis New York ñoom nag di soxna Xadi Mbàkke ak Asmalik si ña ngay préparé nag foofu ca Cincinnati Ohio xolal affaire bi sotti na xam nga ko ba may dem New York kii laa àndaloon ki dugg si léegi mooy Mbisaan ah. maam moo ma àndoon New York 2008 ba 2019 mu def 10 ans yoo xam ne presque 10 ans la non 10 ans waaw def na fukki at ak benn ñu ba ma gëjee New York kon tey su may waxoo New York Mbisaan dugg si mooy mooy wane ne ko yoon ba leeraan na ba may ànd ak New York euh, euh, Mbisaan ñuy dem ak Aïssatou Diop Fall di dem ca euh, New York ba Youssou Ndour di dëkk bu ñu naan New York ci Times Square xaw ma Nokia Théâtre ba ma gisoon benn sa benn saak ci mbalit ay sa Diop fànn ma ku ca ku ca ku ca saak baax na dama ne ko ay soto for mbalit moom taxu maa ñëw ay sa Diop fànn ay sa Diop fànn gis saak mu rafet mu ku ca ku ca ku ca saak baax saak baax na boobu du ma mooy souvenir bi nga xam ne moom laa fàttali am na beneen souvenir boo xam ne duma ma ko wax ah. ndax dama nekk ci hôtel bi bëgg café message na ma tagaa xaar rek ma ne ko noonu dama mar café ah. dem naan café ndekete café bi njëgu café bi <laughs> mooy sama genn wàll paasu bi ndax hôtel bu bakkan la ma Youssou Ndour yóbbee nekkate njëgu café bi rek passé na ñaar fukki junni man ma téye café bi di naan di sorote biñ ma indilee facture bi billahi mooy fekk ma xeex américain loolu moom du ma ko fàtte mais New York bi moom bu soobee yàlla ñun ñëppay dem kenn du manqué yéen yàlla yoonu jàmm ñoom ña ngi koy préparé Youssou Ndour nag mooy suñu parrain ñun moom mooy jël en charge li nga xam ne mooy billet yeeg yooyu yëpp ñen nag ñooy jël hébergement yeeg yëpp dañuy toj New York New York dañ koy toj inshallah Yaya Jammeh ci boppam. Yaya Jammeh ngi reetaan ba léegi. Ah. dafa dem luy ji ay nit boo xam ne. nee na moom nag nee na il faut que waa Gambie mu rey leen quoi. parce que ah. moom li ñu ko doon bañal moo commencé xeeñ Gambie ñu xool Yaya Jammeh. Ah. yeah, yeah. yéen a ngi no stress. because yéen a ngi happy. ma ne Gambie fan yii nii ana de ah. nekkoon xew ci at yi weesu nii ñaari at. because léegi kan moo nekk xew-xew Adama Baro. xam nga xam nga xam nga nit. soo nekkaa ci Dakar. balaa ngay xam ne waa Dakar bi. ñoom balaa ñuy xam. il faut am kenn because ku la remplacer. xam nga am na loo xam ne man soxoruma. xam nga tey soo soo tey. am na ñoo xam ne dañuy wax ne Ablaye Wade dañu ko namm. xëy na dañu gis Macky Sall li muy doxalee ak li Abdoulaye Wade doon doxale ute na am ñoo xam ne ba tey si seen nguur Abdoulaye Wade moo leen gënal ñoo xam ne ñoo xeex Abdoulaye Wade ba mu dem waaye gis nga tey li nga am ne moo mën moo ma doon xeex naan ma ka ka Abdoulaye ma ka soo dama ngooy mooy mu neex ma bañ a bàyyi. après bi ma foxotee xam dañ ma foxoti. ma daal fa teg dañ ko ne kii dafa ngoyoon. moom mu ne moom du ngoy. Ah. léegi kan moo ngoy. hay léegi man man suma ngaam yi suma ngaam yi ah. suma depuis ñaari sow because two years uh, two day dama di xaxatay di xaxatay ba amuma ñeexu génn <laughs> léegi soo leene man ah. yàlla may na ma am naa tuuti ah. léegi yàlla may nag man fu ma ne nii baat bi sa soo dafa dee ah. xam nga ma bëgg lu ay bila wala man loolu man loolu moo ma neex man loolu da da nga ma neex <laughs> loolu daf may neex soo léegi dama bëgg xam nga nit bu fekkee ne da nga wax te yàlla tax xam man li ma def nii dañ ma bumax dañ maa bulaxatal dañu ma dañu ma dañu ma juuxoom yaa nga dégg dañu ma dañu ma daal ci patu ma mm, danga war dem danga soof léegi man nangu naa dem na léegi ma dem mu ngi def man li ma waaj a dem ma <laughs> damaa leen woo. ngir yàlla. xam naa ne loolu dina la neex. man dama tànn. ci yéen ñoo xam ne. dama leen di fay. pour ngeen xatayal ma. Eh, daabo eh, baro. baro ah hey kaay. <laughs> neex na ma hey kaay. hey kaay. <laughs> hey kaay. kaay eh kaay eh kaay eh kaay eh kaay eh kaay leen reetaan leen baro I'm not going to I'm not going to get out of here. Fall seen euh, Sène nekk ca Belgique euh, moom Serigne Modou Guissé moo koy souhaité joyeux anniversaire ak euh, tamit toute la famille de Serigne Modou Guissé moom tamit Maymouna Tall soppe Kouthia la ñu naan ko madame Sène nekk ca Belgique ñu ngi koy ñaan kenn la di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu waaye tamit di am mbégte di wax anniversaire à Beydi maître tailleur foofu nag ca salon de coiffure salon de couture bu Abitiam nekk ca Yoff moom nag moom mooy maître tailleur ba di soppe xam ne moom mooy salon ba moom ngi koy ko sant bébé Aïcha Ndiaye di sët ki nga xam ne mooy Kumba Ndiaye ah, ak Sada Ndiaye ki ñu ko tuddee mooy mooy Aïssa Ndiaye bu pare sama xarit ñu koy ñaanal moom bébé Aïssa Ndiaye xam ne nag mooy Kumba Ndiaye nee na nee na ma moom yi nga xam ne ñoo mën a a jaay New York Kouthia Show ba lépp incha allah Cincinnati Ohio moom moo ko res moom ci boppam nag nee na taaw agement su mbay bi Amadou Mbaye Maodo moom ci boppam moo yor New York kon gars yi commencé nañu séddale li nga xam ne moom mooy transaction boobu kon Aïssa Ndiaye chéri Soadu Kumba euh, euh, Ndiaye Soadu Ndiaye ñoom la famille Ndiaye bi nekk Cincinnati Ohio ñoom ñoo yor promotion bu Kouthia à New York décentralisé foofu ca Cuba ñu ngi leen di gërëm jërëjëf jërëjëf di leen ñaanal fan bu gudd ak gu yaram di am mbégte contentement bu mag nag ci képp ko xam ne yaa ngi seetaan émission Kouthia Show Omar Cheikh Omar Tall depuis Sokone ñu ngi koy nuyu di nuyu tamit euh, ziara alaaji Moustapha saar ca gin gi neew ci ndigalu alaaji Sarr alaaji Kabir saar ak Cheikh Ahmed Tidiane Sarr ak euh, imam lamin Sarr ca HLM imam Adama saar ca Euh, Cambérène di nuyu tamit ki nga xam ne moom mooy Serigne Omar Sarr nekk ci dëkk ba nga xam ne moom mooy ca Thiès ak daayiratu Ham Sarr bi yëpp ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu rawatina nag ki nga xam ne mooy Alaaji Omar Sarr ca Cambérène Alaaji Ibrahima Sarr ca Thiès Serigne Sa Ba xaw saaba xaw Sarr nekk ca Guinguinéo Alaaji Ibrahima Ndoy nekk ci Sonatel Dakar ñoom ñëpp nag Moustapha Niang ca Dakar ak Serigne Mohamed Ndiaye ñoom ñëpp ñu ngi invité nag ziara annuelle bu nga xam ne mooy am Guinguinéo le 6 lay am avril na ci ñëpp teew bés bu am solo la mbokk yi gërëm nañ bu baax suñu ay xarit suñu ay soppee waaye sponsor bii nga xam ne mooy Bisco Bisco waaye dafa neex ba nga xam ne boo ko ñamee foo nga Bisco waay madaar bii nga xam ne mooy pëndëx bi mu ngi toj jamono ni ko euh, ni ko yaxara waxee sànq moo mujjee génn waaye tas na kër yi lu tax mu tas kër yi mooy maanaam neex na ba kër yëpp kontaan kër yi ci boppam dañ koo yàkkamte jot ndax fóot bi dootul sonn da ngay def rek mu daal di yàbbi nga fóot couleur yi dafay continuer kon espace bi mu mel mbokk yi idéal tamit skin bi toj na Sénégal ndax mooy tax jigéen ñëpp daal di ànd ak taaru biscuit bii tamit bisco waay mooy biscuitu Kouthia ñëpp ñi nga xam ne dañoo sopp Kouthia ñoom nee nañu biscuit bi dañ ci gis seen bopp ak bisco waay anniversaire u aasi bi nag moom tamit tey la anniversaire u aasi bu ñu paree ci lii dañuy dem ci anniversaire u aasi aasi Cissé turandoom ngi nii mbokk yi ñu seeti Adama baro wax ji yëpp baro tey lay tontu ñu seeti baro. jërëjëf jërëjëf soo maa leen di nuyu yéen ñëpp man kenn mënu maa jaxase ak waa Gambi xay loolu ñuy wax ne dama jékki-jékki dàq leen waxtaan bi ak li ñuy wax ba ñoom ñu dem loolu bu ma ko leeralul kenn kenn mënu ko xam soo ñuy wax ne damay ngoy ci nguur bi man ngoyuma dafa am loo xam ne boo demee ba bokkaloo nit ki gis-gis rek uh-huh. bu la neexee nga tàggale ak moom loolu la uh-huh. waaye uh-huh. xam nga nguur booy soog a ñëw da ngay wax boo avant ngay dugg doo xam li ci nekk rawatina koo xam ne musu koo xam xam nga bu fekkoon sax <laughs> soo mus noonu naa nekka ministar dinga xam tuuti nu muy doxalee waaye yàlla moo dogal ma xëy rek li Youssou Ndour wax rek nekk ca ma xëy rek yàlla dogal ma nekk cappaacoli cappaacoli nag yàlla moo koy dogal kon ku nekk fii di wax ne courtier la waroon doo soo man suñ ma bàyyi woon loolu waxu waxu ku mer la yàlla moo def man ma nekk ci xolu Gambia yàlla moo dogal man tamit ma xam nga boo nekkee président soo bu yees da ngay dafay neex. Gambia dafa neexa dundal. te Gambia réyul. soo gisee soo bu ma tëddee nelaw. xam ah. na am na ñaari soxna. am na one first am na two first bi am na beneen am na one first lady uh-huh. am na two first lady. xëy su ma nekk ci palais bi. Mm. dafa neexa neexa neexa dafa a nguur nii laa neexee man. li neex neex bii nga xam ne moo neex ñu bugguma yàqal neex neex te mu neex ma ne kenn du yàqal neex neex bi ndekete boo nekka président so balaa nga gëna ñëpp dañu xale yoon bi yëpp nga nekka nga jiital sa kollu nga raay sa biir nga defar nii ñëpp tàccu loolu neex na nga dema dëkk jàmbur ñu teeru la loo bugga dañ ko am d'accord so loolu neex na waaye maa buggoon rek ñu ñamalaan ma tuuti ah. ma tolanti so because su ma tollantee bu jeexee rek man mun naa dem waaye ñam mu neex nga ñam mu saf mu cuqa ñu bugg a suma loxo ne daga bay <laughs> wan boobu du nangu de xam naa ci dara xam naa ci dara man maa ko xam xam naa ci dara man maa ko xam man ko ñam xam naa ci dara maa bañ man duma bàyyi xam mais dafa tuxa man duma bàyyi waaw dafa neex man duma bàyyi ku mer yaa xam ku mer yaa xam man duma bàyyi hey dafa tuxa hey duma bàyyi hey hey dafa tuxa hey dafa neex hey dafa tuxa ah fii neex na ah fii tuxa na ah fii neex na waay fii tuxa na waay fii neex na waay fii tuxa na ah dafa neex ngi kontaan di am mbégte bu mag fii nag jàmm rek dañuy ñaanal ñëpp yàlla yàlla defal jàmm ku caa def na anniversaire am ci jàmm xale bii nag Asi soo gisee ñu teg ko fi pour xale yu ndaw yi nga xam ne ñoo seetaan émission yi bañ a déranger seen yaay yi bu ñu gisee bébé bi ñoom ñëpp ay sage ba émission bi jeex am nañ ci expérience bu bëri am na ay parents yu ñuy interpellé ne leen bébé bi nga xam ne moom ngeen teg ci plateau bi moo tax sama doom bougetul dematul fenn day toog di seetaan initiative boobu nag xale bi am na ñaari at turandoom moom mooy As Cissé di jigéen joo xam ne dafa bëgg émission Kouthia Show ma am moom kóllëre mu ne xale bi laa bëgg nga tuddee ma ko ma tuddee ko xale bi ndax dëgg yàlla mu ciy def lu ne di jël alalam di ci def di ay yére di def ay ay gâteau di ñu yónnee loolu nag moom nit ku baax la nit ku baax la koo xam ne wax dëgg yàlla mënuñu toog fii di wax kuy teral loo xam ne amul bakkan kon xam ne du bàyyi lu am bakkan ñu ngi koy ñaana fan bu gudd ak wér-gu-yaram waaye nag plateau baa ngi nii As Cissé nii ñaari at lay soog a am dem nañu Ndar dem nañu ndar ñun ñëpp bu ñu laajtee Kouthia laajte aasi fu ñu tuddee mbay tudd aasi fu ñu tuddee keneen tudd aasi xale bi star la te àddina xam nañ ko ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram di ko ñaanal jàmm ak xéwal léegi nag kii day dem États-Unis happy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 lu ne gis nañ ko fi bu ñu demee bay anniversaire doomu Tuuba nga xam ne bët fii la yem nga xam ne bët fii la yem merci jërëjëf sant coupez le gâteau Khadim coupez le gâteau coupez le gâteau assis assis si c'est assis assis assis si coupez le gâteau benn xar la nekk du ñaar